bu dee foofu daal kii na foofu. kii nee dinaa ñor nee nga moytu xal. foofu de bu may bu may bu may bu may dugg Amina. <laughs> loolu internet yi xanaa bu ñu suñu internet yi ñoo gën a doy waar ci bu may bu may dugg damay ñëw rek dugg. internet fii foog nga préparer foog nga lii fële damay ñëw ne. fu ñu yemoon. génn si la sàppar bul bul sooy sàppar. <laughs> ñu ne ma phrase bii la ñu yemoon man leen alaali. <laughs> alaali nañ ko toog man leen on <laughs> a ngi noonu. Serigne Ndiaye kii kay kere kere rek ngay jàppee. Basirou Mané borom parfum yu neex ak euh, montre personnalisé ñu ngi koy nuyu Basirou borom turki. man de borom montre rafet sax duma ko nuyu de ndax ndax awoo ci parfum yi. Basirou Mané yaa leen mën yaa leen ëpp doole. yaa leen gën a ah. leen de. waaw mënu leen de moo leen mën moo leen ëpp doole. bu arbitre bi sifflé. mu doo leen dóor du métti. bu baaxee ñu dem ay ñu dem bu baaxee ñu dem. rebonjour. <laughs> rebonjour euh, professeur Sow. waaw euh, ñu ngi ziyaaraat internet yëpp di leen euh, joxaat seen wàccuwaay rek. Mhm. ñu tax fii rek ñoom la fajar gi métti na trop nag waaye daal. Mhm. ñoom lañu xam lu ñu leen di def. honorable de gisaguñ ko de. mu ngi mu xam naa mu ngi ci yoon bi. ba léegi ñëwagul de. léegi kiiwagul de. Mhm. sûrement mu ngi ci yoon ma ah, dem Amina. waaw ayca ñu dem am naa ndigal. am nga ndiga waaw ndigal la on commence avec. bés bi le jour mhm. ñëw ñun ci réplique des services de Cheikh yan Dièye à Cheikh Dieng Cheikh yan Dièye am na ñu mu yabal de. Mhm. ñoo ñoo tontu Cheikh Dieng. loin de la réponse bi ñu bëgg ah bés bi le jour nee na la gars yi wax ak ñun la ñuy xaar ci tontu. wute na wute na du tontu ba ñu bëgg de. la ñu bëggoon dégg nekkul loolu la bëggoon dégg nekkul loolu la service yi wax maanaam ña nga xam ne ñoom la Cheikh Tidiane Dièye yabaloon le ministère des écarts de facturation élevés et un appel d'offres modifié. Mm-hmm. lii la ministère wax. Mm-hmm. am na daal loo xam ne ca lañu xaatimoon mm-hmm. ne lii lay jar lii la ñuy joxee marché yi gis nañ ni daal dafa. dafa yaa trop dafa bëri et un appel d'offre modifié appel d'offre waxoon nañ ko fi sànq. Mhm. dafa am entente parce que dafa amoon wax dëgg yàlla délai bu gàtt pour ñu mën a. ak urgence euh, waaw. Mhm. pour ñu mën a pour ñu mën a defar mbir yi. motali mbir Birahim Seck bu Forum Civil. Mhm. nee na le ministre n'apporte rien d'autre que Cheikh Dieng n'est jamais n'est déjà dit. li amul dara lu muy indi lu bees lu dul lu Cheikh Dieng waxoon. li ñu wax li ñu wax yëpp Cheikh waxoon. wax waxal la fépp taxaw constate que Cheikh Tidiane Dièye n'a pas pris son courage à deux mains en envoyant des fonctionnaires à la solde fépp taxaw fépp taw féex nee nañ daal Cheikh Tidiane Dièye daal wax dëgg yàlla ni mu waroon taxawee taxawee woo ko mhm. Moussa Diakhaté annonce une enquête parlementaire après synergie des acteurs de la l'assainissement de la banlieue nañ ubbi ab enquête. Mhm. activité politique le projet traque des biens mal acquis Sonko lance sa campagne sa campagne képp ki nga xam ne luubaloon nga opération gox baa ngi ñëw Ousmane Sonko ko wax activité politique yi nee na danaa politikaat projet bi wax na ci nee liggéey nañ ci lu toll ci juróom weer danañ ko jébbal sénégalais ñu xam ñun lan la nekkee woon ci ruq gi. ba nga xamee ni plan Sénégal émergent dañ ko jëloon fay ci 3 milliards am ñi ñu fay pour ñu bind ko ñun nag moom. consommons consommation local lañu. ay doomu dëkk ko. ay doomu dëkk ko bind. ñoo ko càmbar. ci juróomi weer dong. Mhm. loolu la Ousmane ko wax. Mhm. Sidi Diop envoyé en prison de cinq étoiles à l'hôtel zéro étoile yàlla na ko fa yàlla génne. amiin yaa rabbi. deux minutes pour lire l'essentiel. ñëw nañ ci Sonko un ministre corrompu ne passe pas une demi-heure dans mon gouvernement. waaw bépp ministre bi nga xam ni. tuur na la moomul. wala yaa ngi yëngu ci wàllum nger. midi. 30 doo la fekk ci gouvernement boo ko defee. midi 30 mu ne la. allez-vous-en tàll boobu mu ngi jël exemple ci Malick Ndiaye. Mhm. prêt à débattre avec tout le monde sur les politiques publiques. lépp li nga xam ni. Mhm. pare nañu pour def ko ci Sénégal wala pour xool nan la ñuy saafaraa secteur nangam wala secteur nangam nee na pare na pour waxtaan ci. ubbil na buntu ñëpp ubbil na buntu ñëpp. Mhm. posons de débats d'idées plus de laxisme dans ce pays amatul yaa ma neex de baay mu jàll amatul ci dëkk bi le plan Sénégal émergent est mort tàbbi na géej plan Sénégal émergent dem na ici repose pas de question pas question d'oublier les marti ñi nga xam ne dañoo dee mhm. ndax mbir mi kenn du leen fàtte mhm. lépp li nga xam ne war nañ koo doxal suñuy xel dafa war a dem ci ñoom seen photo bi gis nga seen photo gis nga te nee na chaque jour son excellence président de la ko ko mhm. ne ko ndax ñii nga xam ni dee nañu pour Sénégal baax la calomnie c'est la réprimer képp ki nga xam ne yaa ngi sos danañu rëq sa ndigg l'opposition sera responsable ou ne sera pas loolu rek am jël seen matuwaay taxawee taxawaayu opposition bu digne loyale mais pas opposition boo xam ne léppam ci ay nar la ko wékk le référentiel du projet est prêt les artistes le défendront projet pare na de. ñu doon liggéey ci juróomi at mise en œuvre bi indi nañ ko la nga xam ne moom lañ jaayeen sénégalais yi ak la nga xam ne moom lañ ko booleeg la ñu fekk ci taable bi boole nañ ko ci juróomi weer la ñu wax pare nañ pour jébbal ko sénégalais les artistes artistes yi nag ñooy ñi ngay xam ni ñoom ñoo koy téye tout corrompu sera démis de ses fonctions képp ki nga xam ne ger nañ la danañ la dàq Ousmane Sonko koy wax màggal 2024 la mouridologie une doctrine universelle Omar saajo disciple de Serigne Saliou Mbacké théorise la concept et consacre la sainteté du Magal un vendredi la mouridologie ah. benn idéologie la rek idéologie boo xam ne aljuma la tombé waaw c'est du euh, euh, c'est du mouridisme mhm. nee na une doctrine universelle c'est-à-dire loo xam ne daal wër na àdduna Omar Sadio disciple de Serigne Saliou Mbacké théorise le concept et consacre la sainteté du màggal un vendredi. le fait que màggal gi nekk àjjuma daal. wan na dayoo un vendredi waaw waaw kéemaan la kéemaan la mm-hmm. kéemaan la màggal 11h julli ji juma tisbaar. 24h mm-hmm. ñëw ñun ci Ousmane Sonko fuy leur décret de création les ports secondaires à cache-cache cache Ousmane Sonko wax na de. génne na yenn yi de report secondaire mhm. dossier yi mu ngi koy càmbar bi lépp dana leer kii. Mhm. Sonko bëggul lëndam nay leer Sonko bëggul lëndam volonté présumée de construction de son immeuble à Ouakam Mamel ma Madiambal attaque Atepa le député Amadou Ba pointe une haute illégale une hauteur illégale. waaw Madiambal dafa am benn immeuble. nekk mm-hmm. léegi euh, nee na jege na ko Ousmane Sonko. ngir daal di euh, daane tabax boobu parce que dafa tiim dafa tiim li nga xamante ne moo di monument de la renaissance bi. Mm-hmm. léegi ma jàmbal loolu daal la génn fësal hmm. démb ab communiqué sax la bind. Mm-hmm. léegi moom la kii di tontu nii Amadou Ba bi nga xamante ne moo nekk parti Pastef. moom la génn di tontu ne ma jàmbal fan yi moom. <laughs> ah liñ koy lim bëri na fan yi de. Augustin Senghor tontu na ministre des sports mhm. soxna Khady xam nga def doon wax ñu defal ko rapport bilan. Mhm. Augustin nee na ko fédération bi mënta def ay bilan financier. ah nga ah. ah, eh, eh. tonton lu tax. fédération tamit ci li war a tas la bokk. tonton lu xew. fédération boo xam ne ah. dara yi mais pourquoi nan la nekkee président fédération tu du mën a. non waaw noonu depuis la. ah. xanaa mu comptable. ah na na joxe ay kii waay. waaw na joxe ay éclaircissement plus de détail c'est du n'importe quoi dëkk bi. le Dakarois ñëw ngi ci conférence de presse manqué sur l'affaire ONAS la yolleeku de Cheikh Tidiane ah nee na Cheikh daa daw de mandat ko wax le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement se déroule et envoie ses soldats fépp taw en avant fépp tawfeex mooy parti Cheikh Dieng. ma ni ko daw. nee dafa daw ma ni ko. ma ni ma ni ko daw loolu la ñu wax de. Sonko fait un live. Thierno Bocoum il voit un contre-feu. waaw le mouvement na leer initie une pétition pour l'éclatement de la vérité na dëgg bi leer. ONAS l'ONAS dépose une plainte contre l'ex-DG. Mm-hmm. ONAS porté na plainte docteur Cheikh Dieng de ka fa nekkoon. Thierno Alassane Sall menace de saisir le procureur. nee na moom day def plainte contre X ONAS nag kële la plainte Cheikh Dieng waaye Thierno Alassane Sall moom daanaka ñoom ñëpp la boole ci plant bi. maanaam contre X la wax. ñaari cheikh ya ko ci am. ñaari cheikh yëpp koo xam ne lañ cee wax leeru mhm. na ñëw wuyu ji procureur moom procureur lay saisir. doo ci ma jàmbal la ngi noonu nee na daal Atepa moo bëgg a daane immeuble ba mu am wokaam ba nga xam ne daal di monument de la renaissance. ADC sous-traitant de Salik Énergie inflige un démenti ci Cap des Biches Madiambal Diagne Pierre Goudiaby Atepa veut casser mon immeuble nee na dafa bëgg tas bâtiment ba ba mu ne. ba mu ne rajax. Hmm. Euh, nee na waaw nee na de day utiliser pouvoir bi mu am ak li mu jegee nguur gi ngir ngir ngir nasaxal immeuble am boobu. Ousmane Sonko exhorte l'opposition à sortir du silence. nous n'avons pas besoin d'état de grâce manifestez-vous. nee na nañu wax. soxlawuñu ngeen ñuy muñal. wax leen jël leen position bu leen nëbbatu. moo moo ñeme coow nag. kii. wax leen kay. direct news bi ñëw ñun ci affaire ONAS Cheikh Tidiane Dièye se débine encore de quoi a il peur mu ngi jeex jeexe de tegul lu leer journal bi nag dafa samp laaj. nee na lan lay ragal. Mhm. lu muy ragal lu muy tiit. à la place du ministre Cheikh Yandier ce sont des agents du ministère qui ont été envoyés pour laver à grande eau la tutelle nee na au lieu moom mu ñëw ay agent mu la yónni pour ñu seetal deram mhm. pour justifier ces décisions ils ont admis qu'à partir des prestations d'entreprise régulièrement retenues à l'issue d'un appel d'offres restreint le ministre a constitué une commune un comité nee na ñoom yi nga xam ne ministre bi jot na koo jël comme ay dogal bañ ko bëggee leeral dañoo ni bi nga xamante ay prestation entreprise am na appel d'offre au lieu ñu yaatal ko dañ koo tënk maanaam dañoo buggoon affaire yi nekk daar daar gaaw ndax mbir mi dafa jampoon urgence mhm. le ministre a constitué un comité que dire du premier ministre Ousmane Sonko sous le gouvernement duquel ces accusations fusent nee na waa lan la ñuy wax gouvernement bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite ak accusation yi am peut-il réellement ignorer ab laaj la de les actions de son ministre particulièrement dans le cadre des marché attribués est-ce que Sonko mbir mi war na koo mën a raw est-ce que war na mën a ñàkk xam lii nga xam ni ministre mu ngi koy def ci ay loo xam ne ay marché yu ñuy jox gré à gré marché de yaam a neex la yaama xi la a ne xiis le Sénégal engagé dans une démarche de jub jubal jubbante ne peut se permettre de mettre le coude sur cette histoire d'entente directe nee na Sénégal bi nga xam ne dafa jël yoonu jub jubal jubbanti. warul coow tam teg ko ci coow li mm-hmm. yaa dégg. Mm-hmm. déconce na ko déconce. le ministre Cheikh Diba également cité lors de cette conférence devra s'expliquer sur une saisine adressée à la direction centrale marché marchés publics DCMP. moom tudd nañ ko ci coow li moo géré wàllu budget gi koppar gi journal bi nee na. ministre boobu war na génn wax ndax dañ ko cee tudd cette sortie des agents du ministère donne t de vraies réponses aux accusations gravissimes du docteur Cheikh Dieng génn bi nga xam ne agent ministre euh, Cheikh Dieng est-ce que nekkul ni day jox dëgg Cheikh Dieng am na benn journal bu ko fi bind sànq nee nañ la ñu wax loolu la Cheikh Dieng waxoon avec ce mutisme du ministre de l'hydraulique la guerre des cheikhs est loin de connaître son épilogue wax naa ko sànq de. pacte gi nga xam ne Cheikh Tidiane Dièye bi àndal na ko tax na guerre bi dox digganteem ak Cheikh Dieng jeexagul de. donc mais euh, instant bi ñëpp a ci parce que mbirum alal boo xam te ne askan wi dañ ko moom dañ ko ciy tudd moo tax moo tax affaire yi moom boo saaganul ci mbirum justice lay mujjee pour mu leer. yàlla baax na. Mhm. à la veille du màggal de Daaru Marnaan sans eau depuis une semaine Daaru Marnaan sans mhm. eau depuis une semaine. Daaru Marnaan mar nañoo. mar nañoo naan. Daaru Marnaan mar nañoo naan. léegi poète nga war a de ànd ak ay. journal bi ay Daaru mar naan nañ leen fexe ñu. Cheikh Tidiane Dieye Daaru Marnaan mar nañoo. naan. Cheikh Tidiane Dieye. jox leen ñu naan doom baay ci Ablaye Dieye. ak Cheikh Bamba Dieye. Mhm. ñu ngi koy xamal ne daaru mar naan amuñu ndox mar nañoo. naan boo maree naan naanal. enquête yéen kaay ñoom ñu ci non respect des contrats par l'État une vraie bombe à retardement. contrat yi nga xam ne état bi jot na ko signé te respecté wu ko. Mm-hmm. nee nañ bombe à retardement la de. Mm-hmm. lay raam. ci ñag bi la jëm. te bu fa amee kër. ah lu ñëpp ne. lii ñag lii raam ci ñag ba la jëm lii ñag ci. ci raam ba la jëm lii raam ci. ci ñag la jëm lay raam ca. ñag ba la jëm lay ñaar <laughs> yow ba kañ nga suspension des conventions de publicité et menace sur les titres de propriété. Mm-hmm. remise en question des décisions du Conseil supérieur de la magistrature les investisseurs face à l'incertitude e des conséquences graves pour l'emploi dakkal nañ lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu lëkkaloo convention de publicité ak menace sur les titres de propriété la nga xam ne ay moomeelu jàmbur la remise en question de décisions du conseil supérieur de la magistrature la nga xam ni conseil supérieur de la magistrature jël na ko comme décision ñu ngi koy xoolaat de nañ est-ce que décision bi elle doit être décidée mm-hmm. les investisseurs mm-hmm. face à l'incertitude et des conséquences graves pour l'emploi ña nga xam ne ñoo doon dëkk bi ñu ngi. sikki sàkk sikki sàkk di jiixi jaaxa. te ñoom bu ñu ñëwul est-ce que liggéey na mu war a amee dana ko amee. day mhm. impacté bu baax. day impacté bu baax réew mi. emploi bi de. Mhm. Mhm. attaque et contre-attaque affaire ONAS ñu dem. su baaxee ñun. léeg-léeg yéen ñëw ñun ci. ñaw hydrocarbures une commission pour renégocier les contrats créés. loolu moom pour ñu négocier waat contrat yi. Mhm. ci lépp lu jëm ci wàllu pétrole. yokk pourcentage gaz ñoom seen. te inévitable. teyaat nañ ko de. il faudra que contrat yi ñu ciy gis suñu bopp nag ñu ciy gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax a baax amal njëriñ sax li nga xamante ne moo di réew mi. billaahi mën a indi dara ci gafaka état bi. yaa yaa wax dëgg de. mais ay contrat yoo xamante ne daanaka. bu dee juróom yow dërëm nga ci am. wow day dëpp. xaaju dërëm Sénégal numérique au Magal 2024 des points d'accès Wi-Fi gratuits installés. ñun fii dañ ko waroon dépassé. chaque jour ma ni dem dikk yeeg BRT bi Wi-Fi bi nay dox. Mm-hmm. léegi STT ñëw STT yi bari. fii da ngaa war a di dox sax romb rek capté wi bien sûr. ah. ah pass internet bi cher na gën a cher gën a cher te gaaw ñaari fan mu jeex 4 giga bi ne fiw. tey neen dëkk yi euh, seen pass internet yi c'est Ousmane Sonko à l'opposition nous n'avons pas besoin d'état de grâce bu la ñu muñal génn leen ngeen wax. <laughs> ministère des sports fédération sénégalaise de football le jeu de ping pong dara leeru fa fii. ministère des yoo xam ne dañ la naan man de Augustin man ba ma fàttali ko ba nekk foofu. ah yow yow man bizarrement ba ma fàttali ko ba léegi. moom moo nekk fële fédération sénégalaise de moom de laa mën xam. bizarrement da ngeen voilà. xaw ñun ñooy man hmm. gis beneen président. Mary Touré daal taxoon na fi di bëgg a jël fédération bi. man te Mary sax ak lu mu loo ko mën a waxal waxal Mary def na ay jéego jaay na fi ay jours. waaye kii club bi mu yor xaw ma sax ban division la. man de ba ma fàttalikoo ba léegi moom moo nekk foofu de fédération sénégalaise de oh, football. ñu dem l'évidence yéen kaay ñoom ñun ci sensibilisation contre la variole du singe pourquoi le ministère de la santé ne prend pas les devants. waaw ne lu tax ba ministère de la santé àdduwul wax ci lii nga xam ni mooy feebar bii commencé lëmb dëkk. variole ci singe. ci yenn dëkk yi nga xam ne. jege nañu déjà dafa mel ni Afrique yëpp la touché. ah. nan lañ ci yàlla musal. affaire ONAS Bougane accuse Sonko de protéger Cheikh Tidiane Dièye et pointe la justice financière. moom xanaa màggali wu. yéen da ko wax di ko jëw naan Bougane daa sax. yéen a ko woo yéen a ko woo. nee na Sonko daal lépp nee na nee na nee Sonko day protéger Cheikh tijan Dièye et puis euh, li nga xamante ne moo di justice financière bi nee na am na liggéey te am na client bu njëkk bu mu jàpp. moom moom répondeur automatique maanaam Cheikh Tidiane Dieng moo war a nekk. moo war a nekk kii bi. ku njëkk ki ñu war a jàpp. ci justice financière justice financière bi ah. ndax moom. tonton Bougane yow da ngaa joxe sa dangaa dangaa da joxe sa dëgg ba pare nii te justice ñëwagul. an Moussa Lamine mu ngi fi xanaa gisu la. Moussa Lamine mi ngi woon sa député mi ngi woon sa lippale lippale lippale. Ousmane Sonko tant ses détracteurs politiques l'opposition sac à main ne nous position boo xam ne ay saagaame lay wax li def ñoo yëngal. boobu de bugaanoo. non boobu dal la rek boobu ku dugg na. nee na ñëw leen ci débat d'idées te bàyyi saagaame yi. ay marques yi marque saagaame yi non il faut mu commencer xuuxalaate. Thierno Alassane Sall annonce saisir le procureur avec le dépôt d'une contre X. contre X ou contre C moom mënoon na def plainte contre C ñaari seex la. waaw contre C rek après C bu jël ñu ne kii moo. Mhm. deful yoon. ñu dem l'exclusive yéene kaay ñëw ñun ci scandale ONAS parquet financier Bougane livre les premiers clients nee na ñoo war a njëkk a dem. waaw moom nee na Cheikh Tidiane Dièye moo war a njëkk moo war a tijji baal bi daal ñoom ñooy clients yu njëkk yi. chef du gouvernement mooy Ousmane Sonko. mais mais Sougou li may laaj mooy Bougane moom dafa xam fi dëgg féetee ba bëgg a yóbbu Cheikh Tidiane Dièye ci parquet financier bi. voilà ah. Hmm. loolu mooy jusqu'à présent ça reste des accusations. jox na Cheikh léegi moom dafa dafa dafa jël dëgg bi dafa dëgg bi jox ko kenn ba bëgg a yóbbu keneen loolu mooy jox na jox na Cheikh Dieng dëgg ba. Hmm? moo tax répondeur automatique baaxul. loolu mooy jox na Cheikh Dieng dëgg. Hmm? répondeur automatique ami sa lippaleef ba niin jàmbur. bal jàmb. non damaa simple na xam nga yow def nga rouge à lèvres. bal jàmb man defuma dara maa ñëw nii rek. Ah. sangu rek ñëw toog nga bëgg maa teg sangu rek jóg dama sangu rek ñëw toog. waaw man nag nekk naa fa di la rouge à lèvres ak kon xam nga ne maa simple nag. Hmm? d'abord soo dama ma faal. sàmm leen ma waaye hmm? sàmm leen ma. ñu dem ñu dem. bu baaxee le chef du gouvernement. mu hmm? ngi leen ma. chef du gouvernement et ministre. mis dans le même sac boole nañ leen de mais. ñoo ñaan ñëpp ñoo ñoo dernière intervention du PM la diversion politique mal calculée qui vise à éclipser les véritables enjeux du moment Ousmane Sonko a préféré organiser un live sur Facebook pour promouvoir ses activités politiques plutôt que de répondre aux préoccupations urgentes des Sénégalais confrontés à des conditions précaires, notamment durant la saison des pluies. Sa responsabilité est engagée. Pourquoi protège-t-il Cheikh Ndiaye dans cette affaire scandaleuse? Ah ñoom protection lañ fa gis. ñoom protection a été très clair. nee nañ Ousmane Sonko moom ci boppam. Mhm. daf koo gënal mu def ab live sur Facebook di wax moom la muy def. Mhm. di communiquer ak sénégalais ca la muy def politiquement. te waroon a répondre ca la nga xam ne loolu la sénégalais yi soxla mu nekk seen i yitte yenn ci yitte yooyu noonu ne nañ taw bii nga xam ne indi na mbënd bi inondation sa responsabilité li nga xam ne moom war na ko yenu et am na ci cër gu mat neenañ moom lan moo tax muy protéger kii di Cheikh Tidiane Dièye ci affaire bi nga xam ne ab scandale la. kuy wax nii ba tey bugaan. Ah! Le ministre a évité de répondre aux accusations lors de sa conférence de presse, se dérobant derrière les fonctionnaires subalternes. Une preuve de culpabilité, surtout venant de quelqu'un qui se présente comme un défenseur de la transparence autour de la corruption bureaucratique au Sénégal. nee ministre bi moom dafa daw tontu bi ay ñooñam loolu day wane ni moom lañ koy tuumaal moom la une preuve de culpabilité surtout venant de quelqu'un nee la ci gën mooy njuuj njaaj boobu noonu ci lañ koy tudd moom mi ko def dafa nekk koo xam ne dafa mësa waaw moom yàgg na xeex mbirum corruption mbirum corruption waa moom wax dëgg yàlla mhm. yàgg na ci lutte boobu fépp taw feex interpelle le ministre pourquoi s'est-il esquivé face aux accusations a-t-il négocié les contrats de gré à gré avec l'État et Visca pourquoi avoir choisi ces entreprises jugées défaillantes entreprises yi nga xam ne mënatuñu il exprime son soutien et salue son courage dans la lutte pour la transparence et la bonne gouvernance dans un secteur aussi nébuleux fépp taw feex ñoom soutenir nañ Cheikh Dieng de Cheikh Dieng PDS la nekk ñu dem l'indépendant yéeni kaay ñëw ñun ci infrastructure maritime et portuaire Dakar vous mobiliser deux mille cinq cent soixante-dix-huit milliards bëgg nañ dajale lu toll ci ñaari junniy milliards ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett deux mille cinq cent soixante-dix-huit milliards. ci suñu ay koppar. ci suñu ay koppar. Mm-hmm. un le premier ministre Ousmane ko a présidé hier un conseil interministériel spécial sur les infrastructures mar maritimes et portuaires wax nañ lu jëm ci wàllu géej gi de suñu port bi la stratégie nationale de développement de ces infrastructures présentée devant les acteurs du secteur. en financement de deux mille cinq cent soixante-dix milliards à mobiliser pour faire du Sénégal un incontournable waaw port bi li ñu mën a jural ci xaalis bëri na. bëri na de ñu dem fisc aide à la presse des médias dément et largue ses missiles wax na de lañ koy jiiñ ak lañ koy tuumaal. <laughs> lañ ko wax ne moom la jël nee na jëlu wala du loolu. lañ ko waxal moom la jël jëlu ko de. ñu dem. l'info. l'info yéen a kaay ñëw ñun ci entre raillerie défiance et mise en garde Sonko peint l'opposition en poule mouillée. ñuy ñaaw. nee na dañoo bëgg naaw te amuñu laaf. te la naaw laafa ca gën. laafa ca gën de l'état de grâce va bientôt se terminer parce l'état de grâce va bientôt par là. état de grâce moom muy neex dana jeex muy naqari dana jeex loolu la Sonko wax de nous n'avons pas posé d'état de grâce soxlawuñ ko non que ça chauffe na tàng Sonko nee na ndax man xaw ma lu sedd <laughs> que ça que tout opposant descend sur le terrain sur le terrain. ah moom lacrymogène yi la leen yéene bu leen génn. nee na leen wàcc leen ci terrain bu leen wàcc lacrymogène yi la bëgg ngeen ñoom bu leen wàcc piège la. l' état de grâce c' est une affaire de poltron yi fu tapet la nous ne connaissons pas la peur. piège la bu leen wàcc nous c' est le combat que nous mais dans le bon sens du terme ñun xeex rek lañ xam. waaye xeex waaye nag xeex ci. ci dëgg. ci dëgg ca nañ koy déggee ñun. Mhm. xeex rek la xam. pas xeex su meeku noo jàppante non xeex. nous ne provoquerons personne. mais qui nous provoque nous trouvera. ndox du bàyyi yoon Sonko wu. ndox du bàyyi yoonam. xanaa xamoo ñu. et c'est dans cette dynamique que nous allons diriger le pays. Uh-huh. ndox du bàyyi yoonam jikkoy borom. jikkoy borom te ñii pax ñoom ñooy jiite ñooy opposé wu. jikko borom pax loolu. ñu baal kenn. je parfois mooy duñ tooñ kenn waaye duñ tooñ da gis. gis nga parfois ci ay discours am bu waxee da nga naan kii xanaa opposition la nekk ba léegi. <laughs> waaye Bassirou Mané nee na sa coono jeex na dañuy dañuy dañuy. soobu hmm? hmm? nee na sa coono jeex na nga wax ko ban marque. Euh, parfum nga bëgg ak montre bi nan la war a mel. beneen baat gold lay doon. Ah, wala wala argent wala mor doole. looloo waaw nee na xool yaay tànn daal. macha allah <laughs> na ñaaw. <laughs> Ah, Bassirou Mané Ousmane Sonko je personne mais qui nous provoque nous trouvera. et c'est dans cette dynamique que nous allons diriger le pays duñ tooñ kenn waxuñu kenn dara waaye ku ñu wax wala nga tuumaal ñu wala nga sos. ku ñu wax ku ñu fii nga ñuy fekk. Mm-hmm. te nii la ñu fas yéene yore réew. waaye terrain moom buñ ca dem. ceux qui veulent s'opposer pouvaient même le faire avant la prestation de serment du président parce que leur opposition ne nous ébranle pas ñiy opposé wu munoon nañ ko def sax diggante la 24 mars ak 2 avril avant président doon def prestation. waaye du ñu yëngal. ndax ñoom seen opposition hmm. yëngaluñu te lu yëngalu ne te lu yëngalu ne la ko yëngal ko ëpp une opposition dont le seul souci du matin au soir est de guetter un problème entre Diomaye et Sonko une opposition où les ténors n'osent pas sortir mm-hmm. mais paye des gens qui parlent à leur place nee na opposition boo xam ne lenn rek la am comme bébé xool nu ñuy tasee diggante Ousmane Sonko ak Diomaye Faye nee na opposition boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko ñànk ñoo waroon opposé wu ñoom génnuñu de waaye dañuy fay ay nit di leen yabal pour ñu leen di waxal nee na loolu du opposition une opposition dont le seul souci du matin au soir est de guetter un problème entre Sonko et Diomaye si on arrête quelqu'un tu ne vois personne ces gens ne savent pas se battre il suffit même pas d'un mois il ne suffit même pas d'un mais d'un quart de lacrymogène pour les disperser ah lii la wax. lii laa la wax dafa ni dañ doon essayer de. waaye ñu ñeme dañuy tas nee na dañ doon essayer nag nee na gars yi moom du ñu génn ndax xamuñu mbedd bi. nee naa la ndax la ñuy xaaj ñeenti xaaj. génn bi mu leen wax génn leen nii. Mhm. piège la dafa bëgg ñu lañ ñu ñam lacrymogène. mais opposants ils ont compris du ñu génn. lacrymogène du ñu ko ñoom opposant wu kii lañ ay page Facebook bind. Mhm. ak toog ci plateau yi. du ñëpp ko war a ñam nag. mais je pense que nag de temps autre da ciy baax ñu génn sur dem sur le terrain. parce que ah aussi ah loolu baax na ci opposition également. 2021 ñam nga ñam naa. ñam naa mais tamit. dañoo mm. war a génn ah du yëfu gone de. ñam bu baax sax. Mm. dëgg naa. lacrymogène yi man buy daw biir la. Hmm. maa fa tool. man am na ci wax man ma xam. am na ci wax damaa yegg. man ma sama benn naataango journal. man de am na ci wax ne moom ci benn atelier de couture laa yeewoo. naan <laughs> jéem a jël aussi. wallaahi man kay damaa jékki-jékki rek waa ji <laughs> man ne def gis machine bi taxaw ma ne man damaa ñëw ci tailleur bi wala. da ngaa jël si machine. fekk ma fekk ah dënn yow. kii asma baax <laughs> na la yëkkati. damaa man sama benn moo tax moo tax ma ne opposition bi Sonko lii piège la bu leen génn. wallaay bu leen génn caw ñu maîtriser ko. li leen wax ni bu mu tax sax ngeen seen ngeen fougue de jeunesse jàpp leen ni ngeen génn euh. bu leen génn. wallaay bu leen génn bu leen génn bu leen génn ngeen dem yéen wàcc tailleur yi di jël wala piège la piège. <laughs> instant bi dafa leen bëgg a pousser à bout bu leen génn toog leen fi ngeen toog di opposé wu ci <laughs> diplomatie <laughs> maa ngi lay nuyu Assane Pro 4 depuis Italia maa ngi lay nuyu Pro 4 Assane ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Uh-huh. critique yéen a kaay ñëw ñun ci scandale à l'ONAS accusant le premier ministre Sonko Bougane interpelle le parquet financier le parquet financier bilan financier du mondial 2022 de la CAN 2024 le cours magistral de la fédération sénégalaise de football au ministre Khady Diène nee nañ ko mënuñoo def bilan accueil orientation la centre hospitalier Cheikh Ahmadou Khadim au cœur du Magal mhm. hôpital ba mu ngay baax laas yéen kaay ñëw ñun ci rentrée politique sur fond d'attaque Sonko nargue l'opposition nee na leen pare woo leen de. yëpp ay xeetu piège la. activité politique bi dafay commencé waat. opposition bi dañ ah. dégg lañ ma wala déggaluñ ma. ñoom. man atelier tëjee xam nga ban la. mooy Sonko ba muy ñëw euh, seet si euh, maire Patte d'Oie mhm. mais mun a jéy mhm. jour boobu la xam nga dafa ñëwoon ba ci côté bureau bi di dugg si noonu parce que même lu jee côté boobu la dëkkee ñoom bokkoon. waaw bi mu ñëwee ba foofu ci la militant yu bëri ànd ak moom policiers yi bëgg leen disperser léegi ci lañ commencé ñoom tamit militants yi di sànni ay xeer policiers yi commencé lacrymogène yi ñëpp lañ ko doon basaade. amul journaliste amul dara fekk maa ngi fa woon dama dama dama nekkoon sur le terrain. Mm. man daal fi ñu sànni lacrymogène foofu laa taxaw parce que am na benn instant gis nga euh, période de manifestation dafa métti woon à un moment donné policiers yi bu ñu daan sànni lacrymogène. duñu xool xooluñ journaliste xooluñ manifestant. ñëpp lañ doon ba foofu nga taxaw. foofu laa taxaw am na fu mu daanu mais fu mu yeewoo la. ci ci gis noonu. damaa jékki-jékki gis lacrymogène bi yegsi na xam nga buñ koy dóor yow mënoo dàqante léegi bi mu yegsee déggoo li ma la wax. saxaar si jóg wala yegg si na tuuti saxaar soog a jóg. en na cas man daal ba ma séenee lakk ma si ne man ci laa gën a xam ne xew ba ma ko. Ah, eh. la na de yow bu fekkee ne xam ne da nga asma wala sa dënn baaxul da nga mën. non non avant muy kii ak yooyu wala saxaar bi suy commencé ngay jëlaat sànniwaat. gënal ci li nga nekk. yow asthmatique déjà yow bu ñu tëjee fenn rek tu as du mal à respirer waxtuma laaj nag uh-huh. nga naan ma ay jël d'autant plus erreur ñu bari ñu jëlaat ko sànni waat ko lacrymogène da leen jël ndox wala nga xëpp suuf wala di naan alors que loolu c'est très dangereux waruñu non non wala nga xëpp ci suuf balaa nga xëpp ci suuf day fekk nga koy tal yow daa mel ni ñam ci lacrymogène yi wallaahi ñamu ko bi passé lacrymogène yi xoolal dañ koo eh. ñambaan ñambaan ñambaan ñun ñu doon dem stade gars yi di kii lacrymogène yi dafa yokk xaw ma xam nga comme déet nag moo tax li moo tax li Ousmane Sonko Ousmane Sonko di sant opposant yi ma ne digaluma li ko digaluma li. man li ma màggee leen di indil ay problème li mm-hmm. ma maggee nii nii di kii. Mm-hmm. yàggul. Mm-hmm. en tout cas saf na sàpp. bu leen dem de toog leen fi ngeen ah, toog di opposé wu mais da fu muy jaar rek toog leen fi ngeen toog di opposé wu ci plateau yi ak page Facebook yi moo gën a leen ko dee leen wax rek mais bu leen def terrain rek waaw ah, bu leen dem ci terrain bi mukk dem leen boo demul terrain doo xam wallaahi lakk machine yi xola ñi doon dem sur le front xam nañ li may wax. yéen dem leen bu dee ngeen opposé dem leen. yéen ñi doon nekk sur le terrain di di dem ci manifestation bu dee ñoom ngeen lacrymogène yi rek seede leen li may wax ñoom xam nañ <laughs> waxuma la lacrymogène yi xoola même quelques mètres da day def effet. waaw imagine imagine quelques mètres. wallaahi day def imagine bugaan bugaan bugaan bugaan mu jot lacrymogène. est-ce que dina kii dina tontooti. dina kii mm, de du gaawatee ah, tontu ah bëgg législative en vue une coalition triple XL Am Khalifa Bougane autour de Khalifa Bougane et Amadou Ba nañ li mu ngi waaj a juddu de. coalition. Eau mm-hmm. de Touba les détails de la solution de Diomaye le projet sera réalisé sur une durée prévisionnelle globale de quatre années de 2024 à 2028 Diomaye nee na daal pour régler problème mu ndox Touba bi. Hmm. fii ak ñeenti at projet bi ci lañ koy amal le grand projet d'alimentation en eau euh, waaw GFM à Touba Biram nduur nag Birane Ndour nag wax na lañ ci mën danañ ko ci def Pikine Technopole deux corps sans vie dont celui du danseur Aziz Dabala découvert dans un appartement dañoo fekk daal seen. ndeysaan dana leen yàlla xare aljana. la porte était fermée de l'extérieur. Hein? L'un des corps était dans la salle de bain, l'autre enveloppé dans un drap. du mort naturel de quoi. doy na waar ah. xëy na xëy na l'enquêteur dina ci indi lu leer leer parce que instant bii nii ñu ngi ci liggéey bi en tout cas lu ci mënut am rek yàlla na leen yàlla xaree aljana suuf foofu seen kaw. métti mhm. na trop. ñu dem. Mhm. le point ñëw ñu ci Madiambal Diagne accuse Pierre Goudiaby Atepa de vouloir détruire son immeuble à Dakar. nee na kii dafa bëgg a toj bâtiment bi Pierre Goudiaby Atepa loolu la Madiambal Diagne wax bâtiment bi nag ci nan la ko amee woon moom nee nag a Goudiaby Atepa day wane ni Modou Sonko jege na. des patrons de presse avec des immeubles qui ne peuvent même pas payer des impôts. <laughs> ñu dem. doy na waar ko wax kenn xamul li lan Le Quotidien yéen kaay ñëw ñun ci affaire des marchés de l'ONAS l' état patauge état baa ngi ca ndox ba ci marché yi toujours silencieux. Cheikh Tidiane en envoie ses services justifiés moom ba tey mu ngi ne pacte ànd ak pacte bi moom dafa yónni ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer ay kii l'ONAS porte plainte contre Cheikh Dièye Birahim Seck la conférence de presse du ministère n'apporte rien indiwul dara lu bees Thierno saal saal nag moom bëgg na saisir justice. ma Thierno. Madiambal Diagne am na lu mu xamal Atepa nee na ko boo ko laalee laal laalaake. boo ko laalee construction au Mamel ñu dem. ma la topp yow le soleil yéen kaay ñoom ñun ci conseil interministériel sur les infrastructures portières port ya nga xam ne war nañ koo taxawal ak ya nga xam ne war nañ koo am ci ay coppite vingt huit mesures lu toll ci ñaar fukki mesures ak juróom-ñett pour booster le secteur pour ñu gën koo mën a ñoñal ñoŋal jooyanti ko ñoŋal la wax ñoŋal ñoñal ñoŋal ñoŋal wala joganti ñoŋal ñoŋal ah au lieu de ñoñal ñoŋal maanaam peut-être mettre en valeur mu gën a baax très bien ah. merci Massou salon de luxe Massou Tivaouane or minéralier et vraquier de Bargny Sendou assurer la finalisation nañ pare pour mu pare nañ pare pour mu pare des travaux de construction et d'équipement dans les délais vers un plan de restructuration de reconfiguration du port de Dakar teg nañ tamit ay plan yi nga xam ne wax dëgg yàlla pour jooyantiwaat port Dakar mm-hmm. defaraat ko ba mu ne ñooñ des investissements nécessaires évalués à deux mille cinq cent soixante dix huit milliards ñaari junni milliards ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci suñuy koppar lii la de waaye ubbi aéroport tëj aéroport préqualification à la coupe du monde de basket les lions domptent les brésiliennes et filent en demi xam ngeen siyaara. siyaara. sénégalo américain boobu xaw na rey brésilien yi démb Sénégal moo gagné Brésil démb jigéen ñi. Hmm, macha allah ah, loolu dana xam macha allah. Uh-huh. basket ca basket ba. waaw ah, ca basket ba. Hmm. les éco yéene kaay ñëw ñun ci. def publication des données menaces sur les télés radio et web la presse sabre le CNRA et le ministre appel. appel au boycott euh, waa appel mooy. waa mooy kuréel gi ëmb li nga xamante ne moo di presse en ligne yi. ñoom d' accord wuñ. d' ci ndogal gi nga xamante ne Sénégal. jël très bien porte parole presse waaw. voilà euh, moo tax. daal di daal pare nañ daal nee nañ pour boycotter. pour boycotter loolu moom léegi man problème bi mooy. appel lañ lañ ci jublu parce que Sénégal li mu woote nii yaakaar naa ne. képp koo xamante ne taskatu xabaar nga war nga cee jël ay mesures peut-être xëy na délai bi. bi ñu joxee moo ndaw loolu mën nañ ko négocier mais pour man nekk en règle moom c'est impératif dafa war a am voilà. su yeewul yaay nal baax na mu ne lan mu ne ma wax lan mu ne ma wax ndànk. waaw. c'est pas en classe la wax. waaw waaw mu ne nga wax ndànk. su ma fekkoon classe laaj ko sama classe yi kër yi ma wër. su dee fajar gi dañuy yeewu. maa dañuy kii dañuy kii dañuy dañuy takk écouteur. fii fee sax. am na ci ah, ah, dëkkandoo dëkkandoo yaa ngi fëgg. ne ko bu ma nekkee classe dëkkandoo yi dañuy fëgg. bu ma nekkee classe. am na ku doon fëgg sa bonjour noo duggee classe. bonjour moom bu ma ñëwee damay kii parfois du ma yeewu. Ah. teg téléphone yi kii message ba. mais boo nee ràll rek dëkkandoo yi fattu noppi. fii waxuma maanaam daf may limité. nekk mu ñëw sama classe. <laughs> dootu ko defee. Bougane démontre les déclarations mensongères de Aliou Sall ah nee na Aliou Sall. ah foofu la bi toll. loolu bëgg wax na fi loolu yëpp fu man màggal gee ko jàpp de mais daa mel ni màggalee. mu ne ko. un ancien directeur de Sud FM appelle le régime à publier toutes les subventions et avertit ses confrères nee na lépp li nga xam ne jëm na. ci wàllum subvention ci wàllum subvention yooyu ñu jox média yi. Mm, na leer nguur gi génne lépp mbir mi na leer. ma yëg nga ne am na kër du taskatu xabaar yu commencé yëngu léegi. waaw Alioune yëngal tonton Alioune yëngal na kër yi de. <laughs> parce que am na ñoo xamante ne publication yi ñoo tax ñu xam ne seen patron de presse yi ñu ngi doon encaissé wala ñu ngi doon encaissé yenn somme yi. ay dëgg feeñ na fi de ay dëgg feeñ na de. Ah. <laughs> problème yaa ngay démarrer. rencontre hier avec les artistes du projet. Ousmane Sonko attaque et cogne. Va-t-il gagner? Point d'interrogation. nee na il va ils vont loolu la wax de grâce c'est pour les faibles nous en nous n'en avons pas besoin soxlawuñu ko état de grâce je suis prêt à débattre avec tout le monde war naa pour wax ak ñëpp suñu koy wax de comment voulez-vous qu'une opposition sac à main nous évente opposition boo xam ne ci wàllu sac à main lay wax lan ngeen bëggee mu mu ñuy xaw a tere nelaw mukk ci àdduna bientôt certains n'oseront plus sortir dans la rue ou parler wax léegi. am na ñoo dootuñu génn. parce que nee na instant bi ci état de lieu la ñu nekk te am na ñoo xam te ne tey jii buñ ko waxoon sénégalais am ñoo xam duñu osé ti génn dox ci mbedd bi. nuyul Benoît Di Maria Diouf. Benoît Di Maria Diouf ñu ngi lay ziar. merci Benoît. Cheikh Tidiane Wade nuyu nañ la. ñu dem Benoît. Amina sama turandoo aussi yaa ngi si biir waxuma la de Amina bii. ne ci ah, kii bi ah ayca ñaari affaire Sidi Diop cat du wees cat du wees gis nga liñ naan bërki démb la toj fële fan France ah, gis nga gis nga sugu euh, ndeysaan yal na ko yàlla yërëm Cheikh Mouhidine Samba Diallo mhm. neewoon na bu amoon lu mën a jiitu doomu aadama ci bàmmeelam cat lay doon mhm. yal nañu yàlla musal ci cat amiin waay yaa ngi tudd ku baax ku baax ku mu bëggoon Cheikh Mouhidine Samba libération yéen kaay ñëw ñun ci affaire Sidi Diop ce que révèle l'enquête placé sous mandat dépôt enquête bi la mu génne placé sous mandat de dépôt hier le chante jugé lundi en flagrant délit lundi lañ ko jugé tribunal flagrant délit conduite sans permis défaut d'assurance véhicule immatriculé en Gambie avec un passe-avant expiré l'enquête accable Sidi Diop bo mosul woon njott ni télé euh, oto bi dina si am yi jafe-jafe parce que ndeysaan ñi ñaa ngi ko wër keroog rek naan ko V8 nga fi indi V8 d'une valeur de 68 millions de francs CFA mu naan leneen a ngi ciy topp waaye nag suñu borom des fois bu lay tojal ci la koy jaarale nee nañu nee nañu euh, prison day tojal boroom cat yal na ko suñu boroom génne ak jàmm moom le grand chanteur. Mm-hmm. Mm-hmm. permis international délivré en Gambie mais volé. mais dafa am benn permis international bu ñu ko joxoon gaa mais waaye dañ koo sàcc ne nan la artiste bi waykat bii ni xawee daal di di di di di tendeefal bañ koy déglu ak di jéema mhm. wër na ma gendarme yi looloo ko daaneel il avait pourtant libéré sur convocation après un contrôle à une heure trente du matin. te li tax gendarme yi gën cee focus. waaw oto bi dafa siiw sur les réseaux sociaux. waaw oto bi dafa siiw. sur les réseaux sociaux moom tamit mu am lu mu doon tontoo. avec matricule Gambie ba pare. loolu aussi très bien loolu. a yàlla ko fa yàlla génne. yàlla ko fayal de la loi yàlla na ko yàlla génne mais ñoom ñoom nañuy bàyyiwaat xel bu baax. nañu bàyyiwaat xel bu baax ci loi ak règlement. kenn mënul nekk ci ci ci kawam. les lois sont faites pour surtout surtout ah, ah. xam nga loi nekk na ay yoo xam ne ne bu ñu ko tënkee man par force dama ci tënku yow da nga ciy tënku xam nga euh, wutee na ak li nga xam te ne moo di règlement parce que réglement loo xam mooy loo xam te ne par exemple sama sama sama sama sens mayuma pour ma def ko cela veut dire que mënuma dox ci mbedd mi ak mu neen nekk loo xam ne dañ ma ko tere de mais sama bon sens mooy ma pour ma def ko. mais loi nekk na loo xamante ne par force yow da nga koy da nga koy respecté. man dama koy respecté keneen ak keneen euh, da da koy respecté parce que loolu moo ñu tënk ñun ñëpp nañ ciy bàyyi xel nag. mais yaa saalum saalum laa ne la loi elle étatique et constitutionnelle alors que le règlement est social. tout court on peut parler de règlement ou de norme. les normes sont maanaam bi duñu leen fenn. Mhm. mais ça relève de voilà quoi. de comportement fan nga mos a dégg saalum saalum bu déggul ci àll. billaahi. moo tax Jean-Jacques Rousseau ne l'obéissance à la loi comme on et liberté. ñaanal ma yàlla. waaye yow ñaanal naa la amal jàmm yaa dégg waay yaa ngi philosophe lu neex. génnal li ci li <laughs> bu doon ci ma ni booy il y a une grande différence entre loi et norme. les normes sont tacites. Mhm. elles ne sont écrites nulle part. alors que les lois sont constitutionnelles. Mhm. elles sont votées à l'Assemblée nationale. et appartiennent xaaral na dem. Mhm. Ousmane Sonko recevant les artistes waxaat na foofu de. ñu dem nous n'avons pas besoin d'état de grâce wa nañ dem bi tey ayca lii quotidien ñoom ñun ci scandale à la Cheikh Tidiane Dièye dans la tourmente moom ba tey mu ngi jiixi jaaxaa le ministre se défile et laisse le soin aux techniciens Birahim Seck waxaat na waxoon nañ ko sànq nee na lépp li nga xam ne daal gars yi wax nañ ko docteur Cheikh Dièye waxoon na ko laa guerre des Cheikh Amina mu ngi continuer boobu ba tey de. ñaari cheikh yi waaw autorisation de diffusion des services de communes de l'appel se braque et exige d' abord la réforme du CNRA waa appel ñooñu mooy seen kuréel bi. ñoom leen nañ joyantiwaat CNRA ba pare ñoom balaa ñu leen di joyanti. booy ko dëgg nag CNRA yàgg na nag. ñu def. le mandat yéen a kaay ñoom ñun ci affaire ONAS une tâche noire pour le nouveau régime. nee na am na ay lëndëm lëndëm de ci régime bu bees bi Bougane ñëwaat na office national de l'assainissement du Sénégal mooy ONAS ba tey Bougane Gueye Dany fustige la tentative de diversion de Sonko en pleine tourmente de l'ONAS nee na Sonko la muy dem di wax ak artistes yi te xam ne ñu ko doon xaar mu wax ci problème mu bi diggante ñaari cheikh yi juum na de nee na day jéem a camoufler rek di jéem a tuur lëndam buggaa na ko wax le mandat yéen kaay ñëw waxaat ko. Mhm. scandale à l'ONAS Thierno Alassane Sall saisit la justice. Mhm. ñu dem. Aline Touré naa la sa sant bi rek moo ko yàq de. nga xam naa ne loo lekk nga fi ut mais fi moom doo am loo lekk teel na <laughs> Touré ñoom fu ñu dem lekk lañ fay wut. Touré Mande Moore. Uh-huh. point actu ñëw ñun ci octroi des marchés de l'ONAS Cheikh Tidiane Dièye esquive le débat Cheikh Tidiane Dièye dafa daw nee na point mooy wax de Cheikh Tidiane Dièye envoie ses directeurs. kan la la polémique enfle. tonton Père nee na Cheikh Tidiane dafa yónnee ay directeurs am. Mm-hmm. pour setal boppam waaye nag taxul mbir mi ba tey mu ngi jur coow. daa gën a yokk ndax leeragul Bougane Gueye Dany wax na. la responsabilité du premier ministre Ousmane Sonko est engagée ministre moo def donc moom am na ci responsabilité moo tax buggaan ne Ousmane Sonko mi daf cee waroon a wax daf cee waroon a àddu au lieu muy dem ci artistes yi di wax ak ñoom. wala ñetti opposition wala tonton Père ñetti opposition ngi nii. contre kii. contre le parti. ñu contre ah, anamu. xoola Cheikh Tidiane Dieye ci kaw ak ñii. waaw yaa buggaan yaa Thierno Alassane Sall. xoola Atepa ici yaa Thierno Bocoum ici yaa. Madiambal le parti de Cheikh Ndiaye accable à nouveau Cheikh Tidiane Dièye chargé nañ ko Thierno Alassane Sall annonce une plainte contre X au parquet de Dakar Birame Seck Forum Civil cette conférence de presse n'apporte rien indiw dara lu bees nee ñu dem. tonton Thierno diversion rejetée. Mhm. diversion rejetée. Mhm. du jàll. ñëwoon ni. non bàyyi mu dem bàyyi mu dem. ñu dem ah. Mhm. c'est bon révélation yéen a ñëw ñu ci. chambre de commerce mu ngi fonctionné ci lu toll fukki at ak ñeent ci loo xam ne daal jubul cey dette fiscale de D-Médias Bougane Gueye Dany démontre le mensonge d'État ah. ne la jàpp ni ñoom moom la ñu yoreel état du dëgg bind nañ nag ab communiqué ñoom waa D-Médias <laughs> tonton nag bàyyil Bougane am naa bàyyil Bougane ah bàyyi Bougane. mais léegi moom dafa bëgg wax ne impôt bi ñu ko jiñ. Amina bi dafa nduroog Bougane. du boobu la ameel. bàyyi ko fu léegi léegi ça dépend rek moom bu fekkente ne dafa bëgg deuxième tour mun nañu organiser. organiser bàyyi baax na réew mi quotidien ñëw ñun ci scandale à la guerre des chefs glisse sur le terrain judiciaire guerre ba terrain dina justice de. Mhm. ñu dem. source a ñëw ñun ci quand le ministre de l'hydraulique et de la Cheikh Tidiane Dièye et le désormais ex-DG de l'ONAS Cheikh Dieng était en odeur de sainteté l'un payait le billet d'avion pour l'autre ah waaw dañoo xaritoo woon de te mën na sax ba di ko fayal billet avion kan si ñoom ñaari si waaw kenn ki waaw kan warul woon ñaaw nag te ñaaw na ba noppi. la Bougane ñëwaat na fii la responsabilité de. Sonko vraiment ni tey une yëpp benn la. l'état en quête de ñëwaat nañ ci conseil interministériel bi nga xam ne une yëpp benn la de bi nga xam ni daal euh, ca port autonome de Dakar nañ ko jooyanti incha allah rentrée scolaire deux mille vingt quatre deux mille vingt sept je pense que enseignants yi ñooy ubbi le 3 octobre l'école fixe ses dates mu ngi noonu. élèves yi ubbi le 7 octobre ñu ngi ci ban mois. août xëy man septembre bi ngeen ma ko may ma noppalu. mais mois d'août bi ah. gaaw na nag. Eh, déedéet loolu day yomb yow yaa ngi vacances lu neex ci dëgg dëkk bi. mois d'août bi gaaw man yaa ngi vacances lu neex ci dëgg dëkk bi. déedéet may leen ma noppalu le témoin yéen kaay ñëw ñun ci damaa yuux ci classe yi ba sonn le 19 août 1997 l'armée perdait 33 soldats en Casamance il y a 27 ans Mandina Mankagne oh 19 août. 97. bii nag moom ay xale yu ndaw ngeen wala juddoo. 33 soldats ay taxaw fi di honorable honorable. en Casamance tu es fanweeri ñett ak soldat. xaaral ma bañ wax samay at dañ may commencé yëpp kon ko léegi. il y a 27 ans. ndeysaan. <laughs> ñu juddoon 97 am nañ 27 ans. ah waaw. xaaral su ma waxee sama at ñii de am na ñoo xam dañuy commencé léegi di mu tutoyer te instant yi comme que am naa jëmm. kii yéen moom xam naa ne at bi moo leen mag. ah. ay génn si ne bul kii. bul ruube. daal moo ñaaxoon ci lu toll fanweer ci ci fanweeri soldat ñett. Mhm. Euh, dans ce bas. Euh, sion des rebelles du MFDC retour sur une journée particulièrement meurtrière waaw waaw waaw. Mhm. suñu jàmbaar yooyu la wallaay wallaay wallaay. yal na yàlla yeesal yërmande seen kaw. amiin. la patrie la mort. ci tribune yéen kaay ñëw ñun ci démenti au ministre. mooy situation des journalistes situation des journalistes des médias est une exception tëggal loolu. dañuy yaakaar noonu la ñuy traité journalistes yi des média bokk ci de. Ah. c'est malhonnête de classer le groupe dans le lot des entreprises de presse qui ne sont pas en règle. journalistes yi yee ko wax wala wax ji est-ce que journalistes yi ko wax. non non xam naa dafa ni dañoo ni dañoo ni ñeneen ñi ñuy traité non ma ne est-ce que wax ji est-ce que journaliste yi seen bopp ñoo ko wax loolu laay laaj. non fii dañoo ni situation des journalistes. maa dégg li nga wax. ah dégg nga wax ji laa. ma ne wax ji est-ce que journaliste yi yaa ko wax. lii ñu des journalistes. des médias ah d'accord situation. Mhm. est-ce que maanaam journaliste ñu wax seen situation baax exactement. waaw bonne question damay laajte dong nag. waaw bonne question may laajte dong. Mm. c'est malhonnête de classer le groupe dans le lo des entreprises ok depuis la visite inopinée de l'inspection du travail ok euh, monsieur Sall la sale besogne ne passera pas par des médias. kii lu muy. gis nga <laughs> bon est-ce que nag ñëpp yëg ko benn yoon. non la guerre des chers encore ayca ñu dem. le verdict yéen a kaay ñëw ñun ci la réponse salée d'Augustin Senghor internet bi dul gis moo rawati le a sollicité des informations la fédération sénégalaise de football concernant les bilans financiers de la coupe du monde 2022 de la CAN dans sa correspondance la fédération sous la houlette d'Augustin a tenu à clarifier ses rôles et responsabilités dans ces compétitions une manière de dire gentiment au nouveau ministre d'aller voir ailleurs et de chercher sous leur paillasson notamment au niveau du directeur de l'administration générale et de l'équipement qui était en poste au moment des dix événements tout d'abord la fédération dans la note qu'elle a adressée au ministère le 19 août a rappelé que les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du ministère des Sports soumis au ministère des Finances et exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers autrement dit lii yëpp nga xam ni moom la ministère des sports sàq woon fédération pour mu defar ko bilan ci ñaari compétition yi nga xam ni. Mhm. Sénégal demoon na fa muy équipe nationale A bi ñoom Sadio Mané maanaam mooy coupe du monde deux mille vingt deux ca Qatar ak coupe d' Afrique deux mille vingt quatre ca Côte d'Ivoire. Mhm. nee na na leen fédération defal bilan. Mhm. Augustin mi nga xam nag moom moo jiite fédération lan la tontu nee na ko lool du suñu liggéey boo bëggee xam da ngay dellu ca ministère boobu noonu nga nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo géré loolu ndax ñun la yor ci jumtuwaay ak ci koppar ministère boobu moo ñu koy dégager ci budget du suñu liggéey moo tax ñu ne tontu du forox la réponse salée. Mm-hmm. saf na xorom. ñu dem Vox Populi ñëw ñun ci Sonko reprendre combat politique et les menaces commencé waat na de nee na day politique day duggaat ci kii bi. ci guerre ci guerre bi. ci game game bi waaw. Mhm. am na benn artiste bu ñu wax heure bu ma neex laa yëngal game bi. waaw. heure bu ma neex laa yëngal game bi. Walf Quotidien ñëw nañ ci transparence dans la gestion des deniers la publication des fonds communs réclamés gars yi ne fonds communs nañ ko génnee de nañ ko génne migration irrégulière l'Espagne étale les chiffres de la mafia sénégalaise ñu dem. yor yor yéen kaay ñëw ñun ci quatre-vingt-dix mois passés illégalement à la tête de l'ARCOP ex ARMP depuis la fin de son mandat en janvier 2017 ah Sayer Niang toog na ci lu tolloog juróom-ñeent fukki weer ci boppu ARCOP bii nga xam ne mandat am jeexoon na depuis 2017 Sayer Niang a perçu illégalement quatre cent cinquante millions ñeenti téeméeri millions juróom fukk plus de deux cent millions d'indemnités de fin de contrat empochées depuis 2016 ah, ah, ah ak ñaari téeméeri millions te moom nekkatu fa waratu fa woon nekk kenn xamul lii la. ngi continuer di am ay privilèges. waaw. ci yàlla su réew. mandat jeex na depuis 2017 2018 2019 2020 2021 ñu dem. demal kay liggéey attanuñ ko. record yenn kaa ñëw ñu ci Al Nassr Sadio Mané à Al Ittihad. info erronée selon son conseil nee du dëgg li ñuy wax ni Sadio Mané Al Nassr bëgg ko dafa war a dem Al Ittihad Al Nassr lay joué Ronaldo Al Ittihad fa la Benzema nekk conseil nee du dëgg de ñu dem. Mhm. daa ni foofu la kii. yaa foofa ndaat Sadio. Sadio ngi. yow yow ñëw na. moom ci moom laa jóge moo doon wax waa ji. ok waram indemnité. ok c'est bon. ndaat Sadio. loo doon jël foofu noonu ci suuf. sama pinceau bi moo waral ah kii pinceau bi du ko la du bàyyi fenn. man dafa jàpp ni gàllaajam bi ci pinceau bi la ne. waaye yàlla baax na. mu bi ci laa def ay sallallahu ala muhammad di ci di ko raay sama kanam. léegi nag. rendez-vous mu ñuy toog kenn du la tudd.